Sonko libérez Sonko libérez Sonko asalaamaaleykum ngeen baal ma nag waxuma ak tey ñii ma taxawal maa ngi wax ak état du Sénégal di wax ak nguur gi fi nekk ak kilifa diine yi ak notable yi ak doomu Sénégal ak kilifa aada yi di wax Sénégal réewu jullit la waaye avant tout tamit réewu ngor maa ngi xamal leen ne ki tax ñu teew fi tey ak ñi mu àndal muy président Ousmane Sonko ak détenu politique yi gis ngeen not boobu ngeen gis mu génn am na ñaari fan bi mu génnee ak tey ëpp na ko sax defe naa ci trois jours lay toll trois jours yooyu est-ce que man ngeen xam lan moo nekk état de santé Ousmane Sonko Ousmane Sonko day état de santé am toll na foo xam ne nii maa ngi ñaan président Macky Sall politique am na loo xam ne jarul ñoom ak Karim Wade jaaroon nañ fi te tereewul tey dem ngeen ba soxlante waat jaaroon nga fi ak Khalifa Sall dem ngeen bay bokkaat table di waxtaan. àdduna jeexagul te Ousmane Sonko mi ngi fi di continuer di dund kon am na lu nga xam ne dafay ñaaw te bu ëllëgee day naqaree rafetal Amadou Ba yow ak Ousmane Sonko yàgg ngeen démb tey doog a ñëw. am na lu bari loo xam ne jaar na ci seen diggante doonte àndatu leen ci wàllu politique bu dara jaral ci àdduna jël bakkan ba lor ab jullit pour nekk président Sénégal am na loo xam ne buñ la diggee ne la diw bu dee wala diw bu feebaree wala diw bu bokkul yaay jël loolu dara jaralu la ko te jàpp nañ ne au moins que ab jullit nga santé Ousmane Sonko man de xam naa lu bari parce que li tax ma xam ko yéen xam ngeen ko waaye maa ngi leen di seedeel ne Ousmane Sonko guddi yi ñu toll teggi ko loxo taxul mu dem këram mais nañ ko teggi loxo mu mën a génn ci grève de la faim bi mu nekk mën a jël ay garabam comme nam ko war a jëlee man message boobu laay lancé président Macky Sall di ko lancé kilifa diine yi di leen wax ne Sénégal saa bu masaan jub guuta du fa yegg parce que kilifa diine yi ñooy jóg jub na ci guuta goo xam ne nag maa ngi woo Touba di woo Tivaouane di woo Ndiassane di woo Layène di woo ñëpp ñu wax ak président Macky Sall mu delloo xelam di wax libérer Sonko libérer tous les détenus politiques wasalaamualeykum wa rahmatullah. salaamaaleykum Sénégal. jaajëf salaamaaleykum Sénégal gars yi lii avant goût la bi préfet Sénégal yëpp boo ko xoolee aujourd'hui ay partisans lañ comme ni ko DGE nekkee comme ni ko ministère de l'intérieur nekkee joxuñu cër sénégalais yi Macky Sall la ñuy liggéeyal looloo waral ñu bàyyi ba 11h30. ñu soog ñoo jox autorisation mais loolu mënul yàq dara parce que ku xool mobilisation bi xam ne sénégalais yi déterminé kon nag gars yi lii avant coup la incha allah on reste mobilisé parce que combat bi mi ngi suñu kanam il faut nu faut beaucoup d'énergie et encore beaucoup d'autres mobilisations libérer tous les détenus c'est une exigence aujourd'hui waxtaanewuñ ko ñaanuñ ko saraxuwuñ ko c'est une exigence démb ànd naa ak benn délégation dem seeti Karim Xrum Xax fële ca Sébikotane depuis sept mois mi ngi foofu il se porte très bien nee na ma waxal waa Sénégal xiifuma maruma sonnuma loofuma tàyyiwuma tant que askan ci bitti di xeex tout à l'heure nit dof dina ñëw pour waxal tous les autres détenus Aliou Sané Aliou Sané Thiat waxal waa Sénégal ne leen je me sens super bien maa ngi ci jàmm je suis super bien traité su ma xëyee entraîné jaamu yàlla lekk tëdd liir lii wi ni ma bëggoon parce que sama xel dal na xam naa ne ci biti gars yi nañ def maintien combat bi dina continuer kon Sénégal le combat continue vive le Sénégal vive le peuple debout libérez les détenus politiques jaa ngeen jëf sama gars waaw jërëjëf euh, yaakaar naa ni li waral marche bi soxlawul laaj Sénégal yëpp xam nañ ko ndax dañu nekk ci réew moo xam ni euh, ñetti at yi ñu weesu yaakaar naa ne li ñu fi dund Sénégal mosu ko xam ci wàllu jaay doole ci wàllu fitna ci wàllu tëjaate waaye ci wàllu xañ askan wi seen bëgg-bëgg ndax euh, amul dara loo xam ne. tey war nañu mën a indi ci lii lu dul ñàkk a wóolu seen bopp euh, ci doxal démocratie ci organiser débat public waaye ci organiser ay élections yu leer yoo xam ne ñëpp dañ ci bopp askan wi mën a tànnal seen bopp loolu nag ñu bëgg a xañ askan wi nga xam ne li ëpp fii Sénégal am na koo xam ne dekkal na yaakaar ci ñoom mi président Ousmane Sonko ñu jàpp ko di ko bund xataal di ko sonal di ko fitnaal mën naa ne 2016 ba léegi ndax ñi ngi démarré 2014 2014 ba 2016 daanaka benn coow amul woon te xamoon nañ ne xëy na kii li muy wax nii askan wi duñ ko déglu waaye 2016 ba ñu demee ba commencé jaaxle lan lañ gis ñu raje ko malgré tout ñu muñ continuer liggéey waaye coow li yëpp mi ngi commencé ci bi ñu génnee ci élection 2019 bi président Ousmane Sonko amee jugee ci 33000 voix dem ci presque 700000 voix ñu ne nag kii foog ñu dogaale ko léegi nii ca la coow yi commencé ca la tooñ yi commencé ca la tuuma yi commencé ca la mbirum prison yeeg mbirum euh, attaque force de l'ordre yeeg lépp ñu gis ko mu nekk koo xamante ne nii ba ñu commencé ba léegi liñ ko teg jàpp naa ne teguñ ko benn homme politique Sénégal tey gis ne mu ngi nekk fële ñi naan mu ngi ci diggante dund ak dee ak yu ni mel dara waralu ko lu dul jàpp ne kii bu ñu wuutoo ci réew mi du baax si ñun loolu tax ñoo jóg ñun senegal lañ bëgg a defar bu xañ sénégalais yi. tànn ki ñu yaakaar ne moo gën ci moom bu ñu amee programme am nañ seen candidat am nañ seen bilan nañu bàyyi ñëpp bokk ku nekk déw déroulé sa programme ñu organiser ay débat télévisé askan yu mën a tànn donc ñu ngi wax Macky Sall encore une fois mu bañ a déglu ñi nga xam ne dañ koy dugal te ñooy njëkk a transmettre bàyyi ko ndax am ñu bëri ñoo xam ne commencé nañ di di ngarale loolu nag li ñu mooy moom ayam jeex na daa war a dem bàyyi ñu réew mu ne ñum waaye li ci ëpp solo mooy am na ñu ma junni nit ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi ñuy wër di seeti seen ay famille famille boo dem daanaka ay de euh, soutien de famille rek ñoo nekk ci kaso yi ay doom yoo xam ne ay fils unique lañ ñoo xam ne mosuñ leen xamee problème dañu yor seen liggéey waaye dañu gëm ci benn projet di ci góorgóorlu di ci xeex ñu jàpp leen tëj ci kaso bi ci jaay doole ñii nekk di jël gaal yi di def dara waralu ko lu dul yaakaar ak ñàkk jàmm ci seen réew mu mel ni dafa nekk loo xam ne dafa arrangé askan bi dafa arrangé plutôt ñoom xay na dañ naan ñiy dem ay Sonko la naroon voté wala yu ni mel mais li am solo mooy damay ñaan askan wi rawatina jeunesse bi bu ñu dem ñu toog ñoom dañuy xeex ci juróomi weer ñun dañuy xeex ci juróom fukki at comme ni ko président Ousmane Sonko waxee donc nañu xaar vingt 2024 soreetul ñu jël suñu réew defar ko ba ñaay tubaab yee ñuy daw di wutali ñoom ñooy mujjee ñëw di immigré fii jërë ngeen